Euh, cérémonie bi li ko waral tey mooy dañu waral jot ay euh, lot de matériel ak ay bagages yoo xam ne lu jëm ci wàllu santé la mu doon ay lal ay euh, blouse matériel ak ay médicaments yoo xam ne suñu mbokk ressortissant ñaaxeen yu nekk Italie ñu ñu fa teewal ak benn programme benn association bu ñuy wax un cœur deux mondes xam ne dañu am partenariat ak commune u ñaaxeen Euh, dans le cadre de la coopération décentralisée loolu ñoo ñu ko yónnee ñu war ko réceptionné tey jébbal ko les structures sanitaires yu nekk ci commune Niakhène euh, loolu nag gis ngeen matériel bi ni ñu ko wane mais lu jiitu loolu première phase bi moo doonoon ñu fexe ba am ambulance médicalisée boo xam ne dañ koy yónnee commune Niakhène mu mën a jàppale population ci seen déplacement yi parce que xam nga ñu ngi en zone rurale parfois évacuation yi dafay poser problème euh, ñu war a mucc ñu leen di teg ay charrette ñu feebar ba sonn nañu ñu Euh, teg ci ay charrette également di leen yóbbu tey bu ñu amee ambulance loolu dina wàññi souffrance su population yi ambulance boobu nag indi woon nañ ko depuis janvier deuxième phase bi moo doonoon nañu dajale ay matériel dajale médicament ba mën a équiper structure sanitaire yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Niakhène ñu am fi trois postes de santé ak huit de santé yoo xam ne dañuy dajale matériel pour équiper leen loolu yëpp dans le cadre de la coopération décentralisée ak suñu euh, ressortissant moodu moodu yi nekk Italie ñoom ñooy dox loolu euh, troisième phase bi ci la ñu jëm ci lu yàggul muy fexe ba jël ay spécialistes ñu xa ñu xarañ ci wàllu faj ñu jógee itali ci province su Milan mu nga xam ni association boobu lu ma 19 commune ñoo ko bokk ñu jël fa spécialiste yëpp ñu déplacé wu Italie ñëw ba ñaaxeen passé fi lu mu gàtt gàtt fukki fan ak juróom ànd ak suñu médecins yi nekk euh, suñu ICP yi nekk sur place ak le personnel sanitaire ñu former leen ànd ak ñoom liggéey bi ak euh, expérience bi ñu am sur le terrain loolu mooy doon troisième phase bi. waaye foofu tamit yamuñu foofu parce que en dehors de la coopération avec euh, Ari Milano muy euh, le projet Un Cœur Deux Mondes on a d'autres partenaires en Allemagne il ba am na benn association bu ñuy wax euh, les ressort l'association volontaire Sénégal ñu mu ngi basé wu en Dortmund ñoom également on a signé avec eux des relations de coopération ba récemment yónnee nañ ñu ay lal yu ñu yóbbu ci poste de santé Ndemeen Euh, au niveau interne, dans le cadre de, du partenariat public-privé, PPP, également ñu ngi nekk en négociation très avancée ak benn clinique bu bu bu ñëpp xam bu nekk Dakar bu bëgg a décentraliser ses activités ñëw installé wu à Niakhène kon bu ñu waxee privé ñu bari dañuy tiit yaakaar ne dina cher wala dina askan wi ñu nekk ci àll bi duñ ci mën a joti mais bokk na ci négociation yi ak engagement yi privé boobu jël même bu ñëwee installé en tant que privé dafay appliquer les tarifs du public donc fu ñu lay defee ticket consultation 500 francs boo demee ci clinique bi francs lay doon fu ñu defalee bindal la sa ordonnance nga dem jënd si kii bi même prix bi doon d'autant plus que am nañ fi mutuelle de santé dans le cadre de la couverture maladie universelle léegi également su ñëwee dafay gën a yomb donc jàpp nañ daal fii ak at yu néew la santé dans la communauté Niakhène danañ fexe daal ba ñu bëri di jóge ci yenn gox yi di ñëw di wut si fi wér-gu-yaram ci commune u Niakhène ñu may wax madame Diop maa ngi nekk poste de santé bu xawlu bon fukki kilomètre ak benn la bon léegi ñaaxeen moom mooy poste commune bi fii mais immigré yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo indi bagage yi ñoom ñoo mayoon poste de santé eh, ñaaxeen commune ñaaxeen sax laay wax ambulance bi biñ mayee commune ñaaxeen ambulance bi xam nañ ne ambulance bi moom mënut a dem xawlu te bu demee xawlu xawlu dafa am suuf foofu léegi ñu doon ñaan pour immigré yi bu ñu mënee jàppale ci beneen ambulance boo xamante ne dina mun a nekk au niveau poste de santé da xaw na ñu xaw a jàppale daal ci wàll feebar yi ma doon laaj yi fi gën a am mooy comme feebaru ah, feebaru sëy yi ak euh, tension yi xam nga fii mag ñi dañuy dem à l'âge de 60 ans da ngay wax dem leen hôpital ñu ne non sama tension bi dara nekk fa des fois dañuy toog un bon jour rek affaire bi daane leen suñu egsee opital fekk c'est trop tard léegi ñu ngi leen di ñaax même tamit affaire dermato fii feebar mooy xale yi seen yaram yi di am ay góom ak affaire fi bëri zone bi moom loolu daf fee xaw a bëri xaw ma qu'est-ce se passe daal waaw loolu moom dinañ koy jànkonteel si suñ constantion bon ISC loolu ci problème hygiène la rek parce que des fois femme yi hygiène bu war moom lañ dul am des fois ku jigéen ki dafay am IST sax fekk ku góor ki moo ko ko jox te ku góor ki da nga leen wax parce que parce que boo koy ñoo war a ñëw ku góor ki daa war a ñëw ku jigéen ki ñëw des fois da ngay convaincre ku jigéen ki waxtaan ak moom oo jëkkëram ne ko da ngay wax ak moom mu ne man feebaru ma fekk du loolu parce que même ku jigéen ki bu ko yoree bu fajoo te ku góor ki fajuwul buñ sëyaatee tamit mun na ñëwaat looloo tax waaw moo tax traitement bu ñu koy def ñoom ñaar ñoo ko war a bokk. ñoom lu ñuy faral di dem di nemmeeku si seen yaram ñëw ci poste santé consulté wu. waaw moo dinañu ñëw moom dinañ ñëw mais dañoo amul lee moyens xam nga fii tool yeeg affaire yooyu noonu mais nag quand ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi fi góorgóorlu parce que commune bi ñu ngi siy jàpp parce que il paraît que suñ fonds de dotation yi nee nañ génn na agsi na war nañ ko jëli léegi dañ maire dafa waxoon ne xaw na tardé tuuti nag xaw na tardé ñëw na mais xaw na tardé mais fi mu ñëwee baax na waaw dañuy dimbale rek ñu koy teel a jot muy egsi si ñun ñu mun a jàppale population bi waaw. yéen daal lu ngeen mooy am ambulance boo xamante ne a di bu ñu amoon ambulance daal xawlu ak maternité moom dina baax parce que locaux yi dafa xaw a xat. maternité isolée amuñ ko dafa farataché ak poste bi am nañ mais dafa rattaché ak poste bi waaw. bu ma bu ma santee ñi fi nekk ba pare di wax alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bu ñu taxawee fii nga xam ni mooy suñ cosaan nga xam ni lu ñu am mooma lu fi waaye defit nun nga ko defal ñun defaluñ kenn dara mais lu fi waaye def ñun nga ko defal ci la ñu amee xalaat ni réew mi am na lu mu manqué te it ñëpp war na cee jàpp parce que taxaw rek di wax maire wala nga yaakaar gouvernement yaakaar nañu ni loolu du jëmale kanam am réew parce que ay xale lañu mais dem nañu fi ci bu bari ñu xalaat ni booloo moom képp moo ñu mën a jëmale kanam ci la ñu xalaate ni war nañu dajaloo jéem a seet nan lañu ñu war a def ba dugal suñu loxo ci suñu commune après ca la ñenn ñi waxe ni nañu commencé ci santé parce que santé moo jëkk parce que nit ki su wérul lu mu am rek ak lu mu bëri bëri rek mën na koo jeexal pour mu wér kon nañ commencé ci loolu coocu ci la ñu commencé ba ñu ko commencé it dañu ko jël ngir yéene ñëpp nag ñëwut mais bëgg nañu sax à partir di tey ñëpp ñëw ñu ngi ciy sant maire nag yaatal gi mu ñu ko yaatalal tey ba ñu mën a wax ñëpp di nu dégg. ndax nun loolu mooy suñu itte bi ñu ko sémbee it ki nga xam ni tey mooy suñu jëwrinu liggéey nga xam ni tey tool boo ko gisee mu set surgaye jàmbaar la waaye jawrin ja mat naa gërëm muy Papa Dieng jokkoo ak waa Croce Verde bu Corsico di Milano fa saasa avant ñuy dem un mois parce que dañoo jëleen dix son ni kenn ku nekk day làmb poosam parce que nun ñi nekk fii ni ñu tollu tey waruñu bëgg dara mu di nu jaaxal kon lii duñu ko teg ci kaw kenn dañu koy làmb suñ poos ñu jënd ko mais nag ba tey tooguñu rekk di yaakaar kenn dañuy def chaque weer bu ñu fayee ko kenn ku nekk la nga fayee ko nga jël ca dugal ci kees gi mu jëm si fii ci ñaaxee noonu lañuy ñuy doxale li ñuy liggéey néew ak a bare ku am 5 euros wala sa 10 euros dugal ci kees gi après ñu di ko dajale noonu la ñuy def ci la ñu waa Croce Verde bu Milano bu Corsico di Milano ñu ngi leen di sant bu baax xëy na bu ma ko mayee sax dinaa wax ak ñoom tuuti woo ñu ñëw ñu jox ñu ambulance bi ñu indi ko daaw jéeg après ginnaaw bi ñu dellu leen diisaat ñu woonu joxaat ñu matériel bii ñu indi te ñoom yegg nañoo nun ci tey yéen nu fiy demee ñu wax leen xamal leen leen nun de amuñu sax hôpital parce que ñun ay case santé la ñu am ak ay ay yooyu ay district de santé ñu ne egg nañ ci ñoom ni tey bu ngeen aman hôpital ñun danañ leen jox matériel bi ci war a dem bépp ba léegi ñoo ngi dox ak ñoom toujours ñoo ngi dox ak ñoom guddi ak bëccëg ñun daal fii lañu am lu ñu am fi lañu koy indi di gërëm nag ñëpp ñi nga xam ni teew nañu fi te jàpp ci commune bi di woo mbooleem suñu mbokki immigré yi nekk ci réew mi ñu xam ni nun kat li nu doon wootee ngi nii tey lii moom lañ doon woote moom lañ bëggit ñëpp teg ci seen bët amuñu lu dul suñ cosaan lii ànd dañ ko ay kilifa yu mag yu bari yu dëkk ci soon bi yoo nga xam ne tey jii nii dëkkatuñu fi am nañ feneen kër mais jàpp nañu ni ñoom fii lañ dëkk parce que ñi ngi ci guddi ak bëccëg parce que tey su ma ñimee taxaw fii wax war nañoo xam ni am na ñu nekk ci sama gannaaw mais kon duma ko sañ sax parce que maire a ngi fi sous-préfet ngi fi ñeneen ak ñeneen a ngi fi ñu taxaw di liggéey kon nag ñoo ngi sant cant gu wér a wér koo nga xam ne nii ñu ngi koy sant population bépp di ñaan mbooleem population bi fi nekk itam ñu bañ a faste seeni loxo ni immigré yi wala ñu ni gouvernement wala ñu ni kenn parce que ñun bu ñu ko gisee fi ñu bokk ci kilifa yi nga xam ni ñoonu yar dale ko ca xaadim rasool ba ci suñu maam alaaji Malick kenn ku ci ne topp bi nga sas woow bu ci nit ñi jaaree duñu sonn diw laa yaakaar diw yaakaar te jëfoo ca la muy jëf dara it nañ ko bàyyi xel bu baax a baax parce que gis nga sëñ Sidi Muxtaar sémb yi mu fi sémb ana ci nu mu ko laaje nit ñi kenn ku nekk mille cent quarante francs nga bëgg ci tabax jumaa Tuuba def ci université tabax ci jumaa ci Ndakaaru xool leen loolu te mille cent quarante francs mën na koo yeggale kon lu tee nun ñi nga xam ni ñoo ngi dëkk fii nga xam ni ñoo ngi dëkk ñaaxeen bu fekkee defuñu dara lu dul mbay itam bu ñu bayee ba mbay mi ñor ñu war a mën a dajaloo benn bis waxtaan ci nan la ñuy def ba suqali affaire bi moo xam góor day joxe ñaar fukk wala ñeent fukki dërëm ba ci mill francs ñu di ko dajale tey su ñu amee lu mel ni ambulance bii nga xam ni tey am nañu ko nga xam ni dina am peut-être jafe-jafe ci ñenn ñi nga xam ni duñu am xaalis pour mën cee sol essence ñu mën a am kees googee pour dépanner ci ambulance bi muy daw ak ñeneen ñi partenaires yi nga xam ni ñi ngi ci ci arrondissement bi te nga xamee ni yàlla may na leen alal joo nga xam ni nii weesu nañ sax jënd ab ambulance ñu ñëw ñoom it dugal ci seen loxo xam ni suñu nekkee ca réew ma xalaat ni dañoo war a suqali gox bi ñoom ñi nekk fii yàlla may leen ba génnuñu réew mi am na loo nga xam ni yàlla teg ne ko seen seenu loos ñoomit it war nañ ko def fii ci réew mi ñoo ñu maa ngi leen di woo. ressortissants de la commune de Niakhène ñi ne Italie ñoo jël euh, ay matériel yu am solo ci wàllu santé. matériel boo xam ay lal la ay médicament ñu jagleel ko poste de santé yu ñaaxeen loolu nag suñ ko defee vraiment dañuy dimbale état bi ndax état bi euh, sa politique sanitaire mooy au niveau vraiment des postes de santé nit ñi am jumtukaay nga xam ne képp koo xam ne feebar nga ñu mun la faj donc loolu lu am solo la ñu ciy encourager donateurs yi di ci remercier aussi le maire de la commune ba nga xam ne moo yombal lépp ba nga xam ne matériel bi mun a yegg si fii ba tey ñu koy joxe pour poste de santé commune u Niakhène yëpp donc vraiment kontaan nañ ci di remercier monsieur Fallou Fall bi nga xam mooy seen président tey ñaan rek vraiment yeneen action yu gën a yaatu ñu def ko ndax ñoom fii lañ dëkk Italie lañ ne mais wax dëgg yàlla euh, soo nekkee bitim réew di xalaat sa gox loolu déjà dañ koy euh, dañ koy rafetlu day ñaan vraiment ñu yokk ci secteur yëpp ba nga xam ne lépp lu population yu bëgg ñu taxaw ci pour le développement de la commune